وتسليم على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 la wooteel 77 677 77 08. jaaxle nag jot dëgg dëgg wax dëgg yàlla ndax am na fee yoo xam ne ci mbedd mi lañ ko daan gis waaye buñ demee ba gis ko ci daara eh, wax fa dëgg yàlla ñu xam la ngay sëriñ daara bu mag tey dañ nan bu fekkoon kii la doyen nga ci ci sëriñ nga macha allah daara ji gën a mag ci Tiwaawan nga yor ko ñëw nañ fa mu bokk aussi ci daara yi gën a mag ci wax fa dëgg yàlla ci réew mi tey taalibe bi mën bi mu mel na biir daara est-ce que jaaxle jotul xam nga euh, sëriñ si xale dafa am xol te xolam day jóg te bu xol ba jógee lu mu jot a jóg lu mu jot a yëkkati ci kaw sëriñ bi la koy teg xam nga di toñoxal xale di ko toñoxal di ko toñoxal di ko toñoxal di ko toñoxal ba mu sës. mu sës yi day wëti wëlbati si ko defoon. xanaa xamoo xar sax wala sa bëy wala sa nangam bu sësee mbëkk la waaw. dara xewul. loolu amoon na fi bu yàgg. Cees gii la amee woon. waa ji dafa euh, sëñ sëñ bi dafa dafa dugg ci ron lal bi bi taal bi di ñëwee. xam nga taal bi dafa mer rek. jël ngànnaay. wut sëriñ bi mu dugg ci ron la mu xëcc ko rek dóor ko fan la sedd loolu yàgg njàngale man damay nekk sama ne kii ngi nii léegi-léegi ma dégg coowul daara ji ma woo eh, waxal na leen ñu bàyyi li ñuy def léegi-léegi ma fekk ma dégg coowul daara ji fekk kay jàngale mu nga fa Abdou Sall ma woo ko ne ko li ma dégg nan la mu ne damaa génnoon dee ko bàyyi nit bàyyi nit parce que daara dangay xam ni ay nit ci ci ci xale yi ay dof lañ leen def xale yëpp dof lañ leen def ndax xale boo xam ne day dem ci mbooloo bu demee ci ngénte li tey wóor na ko ne moom ndesit lay lekk du lekk moom loolu xalaat ndesit lii lay lekk mu nga ak potam fële ak aw xeeram toog ci côté ba suñ desalee jox ko mu lekk suñ ko tooñee mu sànni xeer mais loolu léegi élève bi jó élève bi jóge école ñëw gàddu saagam dem fële ca paye jël ku weeram euh, tiim boolam lekk ba suur raxasu jël ci boisson bi bëtt dem yoon yoon waaw lu ko may sañ-sañ bi kii ko lu ko xañ sañ-sañ bi lu xañ taalibi bi sañ-sañ bi lu may élève bi sañ-sañ bi kii ki ko yar daf ko def nit kii ki ko yar daf ko def ko defoo nit parce que daf ko wan ko yow foo dem desit nga war a lekk ti boo seetee majeure partie ci taali bi naa day man barki démb rek may ñëw ñu ma wër foofu damay yëlwaan dama woor dama yàlla nga dem ak jàmm yàlla nga dem ak jàmm man daal xale yoo xam ne maa day taalibe heure jàng may leen yéen heure jàng rek ñoo ñun jànguñu heure bi ma jox la ma man mu ne chauffeur bi yoro xalis bu ma kay man kawal ma maanaam jox na ala ah, looy def. pour régler problème bi lan lan war def. daara yi mënuñu régler problème bi parce que ñun ànduñu te ko ma ngi wax ne man sama daara mhm. la wax. loolu lay wax ne ànduñu. yàlla <laughs> loolu <laughs> sama daara la wax. suñu àndoon dama nan daara yëpp waaye ragal na ma tudd ma ma wax ma ma généraliser kenn génn naan waaye kii wax day wax rek. Mm-hmm. waaw waaye nag su ma ne suma ma daar laa man sama bopp la engagé kenn kenn mënu koo régler gis nga fi mu toll nii kenn état dana jéem euh, def nangam nangam nangam dajale woote waaye buy so du sotti mukk du sotti mukk parce que dañuy jiital bëgg-bëgg na mm-hmm. dañoo jiital bëgg-bëgg bi moo tax bëgg-bëgg jaru jiital yi nga nit na gëm ni lépp luy wërsëgam balaa dee dana ko jot su ko jotee lu mu ca moom dana ko lekk lu ca keneen moom dana ko teg foofu ba ba ba borom bu ñëw jël ko jeex na macha allah